tuubaak tiwaawan ñaseet jaamala canaba kabaaka laayeen wa njaasaan fum jira teralal kabaaka saaxi ma albaaqiina ajmain yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal

الله وسلم يا سيد الكونين يا علم الهدى يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدر تمي في الوجود على المدى أنا كم بسمنا يا خير خلق الله يا من في كل نصيبنا محمد عم البرايا منتهى والمبتدا يا كفر الفخر بخصله يا مرسلا بالحق دوما سرمدا خليلا يا عجا والذلا بالتواولي أنك فيها كالتواول تواول فيك الإمن للمتيامين أنا سبي سيد العالي فما تعرف يا تائرون انت ولكن هذا الطيور الميامي أنا سبي سيد الحاج ولم يكن في الفتوى ولمن الجنيه ولا هي في الأرض ولا من سبحان مالك مدد ولم يكن قبل في ولمدد سرد بعدك سمر مالك بمدد ولم يكن قبل في سيدي عبد العزيز الامين التيجان انا سكن سيدي عبد العزيز الامين التيجان ولم يكن قبل الفتوان ولمن الجنود من بهمان كرم كارا تزرف انا سكت بهمان من التيجان ولم يكن قبل الفتوان Allah is so free, Allah is so free, Allah is so free, Jerusalem. me.

إلهي بقطب العارفين إمامنا أنا طالب شيخ إلهي بقطب العارفين إمامنا شيخ النتيجة خوصول الإله وسيلتي كتاب النظام الولاية جملة جملة به أتني خسران من كل زلة به أتني فالمعارك كلها أنا طالب شيء لني بيئة وانا كل خايف نتيجاني من كل سيدة وكم أستكي عذر في زيارة سوايا أولاك من العباد بخيضتي ونادي وعلي دين دار عقل جواب

ومن يتبع ربي الى خير التي وأزكى صلاة الله ثم سلامي على خير خلق الله من خير سنيتي الآل والأسباب بما جر سارق وما خالت إياها إلى إنشدة من إلى وتخرج المعسى يا تخرج المعسى إن المرأة أتعب الشعب التجاري أتعب الشعب التجاري يا ويل طويل ربي بالمزايا الخلق لله ووفد السيف رباه خير الوجود للمعصي أعلاه أو خلفه إن المدائل إن المدائل يا ويلي ويل

Thank you. Touba Mbacke ñaari loxo ca ko. wante nag maa ngi nuyu sëti Serigne Touba bi nekk ci tànti bi. Serigne Moustapha borom daaru cër cër ma nga dalee ana sa bay borom daaru. bu nit digal bu nit digal ku sopp sëñ mu taxaw Mbacke loxo ca ko. gindalaay jàllale. si bambara waa waaye ci sopp Serigne Fallou Mbacké de indalaay jalaale balak borom ay sat Sadio moom jaaro ma jaaro sa loxo ca ko indalaay jalaale waki maam Mor jaaro sëñ Cerno Birama ca ndaamal daaru waaye ci sopp borom daaru loxo ca ko indalaay jalaale waaye masak baara maami dorom ceexu sopp Serigne Touba Mbacké loxo waaye ku sopp Serigne Fallou Mbacké la ko ca kaw hindala jallala hindala jallala borom juróom jàpp ndar xabaan borom ñëwaan wa ca ronu xëy la waaye ku sopp Serigne Saliou Mbacké la ko ca kaw murit digal murit digal hindala jallala dikku Serigne Touba ana sa pay Serigne Touba Mbacké Mam Seex moom Cheikh Ibrahima Fall la la Touba Mourideen doo daa bay moom Sëñ Ndiaye la Touba Mourideen ana sëpp Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Fall déggal Cheikh Fall déggal wala fara yamatina Cheikh Fall déggal mutala ku sa ku sa ibala ku sa ku sa ibala na bay moom Sëñ Ndiaye na bay moom Sëñ Ndiaye ana soppee Cheikh Ibrahima Fall war ginnaaw màggal fi leen ku màggal màgg waaye ku sopp Cheikh Ahmadou Bamba la ko teew Ahmadou Fall Seyar Ndiaye Ahmadou Fall Seyar Ndiaye Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ana soppee Cheikh Ibrahima Fall tukaram wargal xaadim waagaan mu lay ziyaare kam ko sumu safam waagaan moo def takk ci sëriñ Tuuba ko soppay sëriñ Saaliw waaye ana soppay sëriñ Saaliw Mbakke ana soppay sëriñ Saaliw Mbakke bayzaal Mbakke bayzaal defe ni ci sama seex ta ci ci Mbakke waal seex Saaliw Mbakke borom baali sëriñ Seex Faal yalla صلى سيدي لا إله إلا الله وحد الخليل ما فتح Cheikhuna Tidiane waaye ku sopp dafa nit ñi màggam taalibe Cheikh yi waaye way sama goro te ba ñëw sama soxna laa ko moom ndeysaan dafa baax keroog ci asalam rakkam moo doon def tàkkusaan Serigne Babacar Sy man maa ko way way way mu ni ma ñoo may la keneen a toog moo tax way fu ma koy wayee damay bëgg mu dolli ma dëgg yàlla muy ku baax أنا طالب شيخي دنا نمتير أنا طالب شيخي وخلن بير أنا طالب شيخي شكونا تيجاني يا سيقنا يا أحمد التيجاني خب الوجود ونعمة الأكوان سلم بابا كرسنه يا راقلا متسابقا ركباني نحو الجنان روقي وريقاني أنا ركبك شيخ الوتيجان أبي الألوكة من أسير علاقة عوائس وإسودة الأزمان شحن تيجاني أبي البيان لأريا متسائلا بواخدين ودولة سكاني شحن تيجاني لولا شيخ مخادير الحكيم إلى عنا على فاطمة أخي بعاد السامي شحنت في جانبي أنا طالب شيخ سرين بابا كرس الليل ما قم يلا قم شحنت في جانبي أنا سرين بابا كرس مالي هذا الذي إنسان عين دقيقة متصرفا بدقائق الإنسان شحنت في جانبه هذا الذي كان ممد وقال لم العالية فاتك بيباني أنا طالب شيخنا تيجاني هذا الذي خطنا رضوان عاليا بمنزل الآيات والفرقان سخنا فاتي سما قلوب الله في الآية والشيخنا تيجاني أنا سبي شيخنا تيجاني هذا الذي خطنا رضوان عاليا بمنزل الآيات والفرقان تيل الأجار وسلمين ويخدم باس أويرا شيخنا تيجاني هذا الذي كان ممد وقائلا بيت الولاية فاتق بيبان شحن تيجان وخواب مردات عليه بساقه من مبتد القرآن والفرقان شحن تيجان ختم الولاية ما خفا ختم الحداوة وجدوى

التعليم هو مطبع البحرين عين عناية دراسة من برقة الرحمن شيخنا التيجاني هو احمد شيخنا التيجاني هو احمد محمد والهرواني مختار الذي قد احمد الداني شيخنا التيجاني هذا سليم محمد ذا سالما فقل ابوه قدوه الازمان شيخنا التيجاني هو قدوه شيخنا التيجاني هو رحمه شيخنا التيجاني هو عهده شيخنا التيجاني هو عمده شحنتي تيجاني هو تحفة الإخوان أنا تعرف شيخي شحنتي جابي هو قدوة شحنتي جابي هو رحبة شحنتي جابي هو إعدة شحنتي جابي هو أمة هو تحفة الإخوان شحنتي جابي طلعت لنا شيخ شمس العداشر كسف الدنيا لمن يرتدى عن طالب شيخ عبد الأمام هم المبعد المرمى وقد طلق المدى سكن في جاله فذو العلا فوز المنى عن خليفة عملي أمة ما زايا العصير الله من خير الوجود الذي أنعم مولاه يربى إلى خير أصحاب أولاه من خلف زعامه لا الله مرعاه به ذات الأرض حال ذات تربيه هو الغرور من الغرور في خدعه has come. You never You never you you we do, you do. you

Let's go.

Yes, you know, I want to

tey ana ku bëgg Serigne Babacar Serigne Babacar Sy nee na ana soppi Serigne Babacar Sy Malick Serigne Babacar Sy nee na bala ngaa xam ne sama taalibe lu may njariñ nga génn àdduna ba am ñetti fan ci bàmmeel ndeysaan di nga xam ne sama taalibe wante boo noonu billaay boo génnee àdduna di nga bëgg doon sa sëriñ ana fi nga bëgg sëriñ mooy borom ko dañ kaare bi wala yu salli amalo ala xaataya amali si wal muhabbatu wa tanzu أشهد وإذا قالوا

Senhor. أسي أوري مرها أنفلا من جوفلا وخمي والله أحسن لهم من العالمين هدى ورحمة بسم الله كسم الله وخمي في يوم الإسلام في سار الله

kon ñu ngi leen taxaw la jëm lépp lépp sëriñ sa doom سوء عاف وساتر سعد لحيك الأوثان يا رب لحيك الأوثان يا رب سعد يا رب لحيك الأوثان أنا سعدي أنا فاضي زكي سعد يا رب سيدنا محمد قدم تحول المدرسة سيدنا محمد لما كان

ڀو مو جوڙائي نه زاب Oh, يا رسول الله يا رسول الله يا رسول

سيدنا محمد خمد سيدنا محمد انا سقي سيدنا محمد واي دفلني واي كديكي نيسان نان مدينة مدينة واي رسول الله Oh,

Zaman yok bu ayağa

You're la a Yalla

سن نو Thank you. Somebody

ا سقييتن لک تييتن Yeah, I feel

Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, The Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق سبق نازل ختم الأخير إلى صراطك المستقيم وعلى محمد ومقدار العظيم كربة ولا ولي سبع سلم بعدك bëgg Serigne Babacar bëgg rek dara maam aram loo ko Thiam loxo ca kaw. waaw nag kii di ñëw nag xam ngeen ko. mooy sama seex. Alxaaji Malick Ndiaye Socé. waaye tàcc leen Malick waay. ndeysaan li mu guddee. sànq ba léegi. moo ngi di seize. mooy indi baasi lépp rek mendayang ànd ak doomu ndeyam maître ñaa alxaaji badu ñaa di nuyu sunu frère yoo xam ne ñoo bokk ndey baay ñu ci tant bi alxaaji Amadou Lamine Diop ak Maodo Ndiaye ñu ngi ziar bu baax kontaan naa ya waa Colobane kontaan naa fayal ngeen jëf kee moom Ablaye boutique boutique Serigne Babacar si bi nekk Colobane Ablaye mais moo fa nekk Maxtar Birame waxtaan naa cër cër waa Sall Gambien ñu koy bu baax waa Gambie yëpp noonu wax dëgg yàlla ci yàlla yàlla fay kon bu Malick toogee rek oustaz ma Yacine ñu lay ziar bu baax imam ka ñu ngi jégalu bu baax ci xumbal maam as Badiane ñu ngi jégal lu baax ci xumbal Serigne Cheikh Tidiane day am lu muy wax lu sabar warna naa te man damay faral wax xale yu doxa yi alaaji baru kaay toog ko ci am solo nee bisu mbay bisu Umar Faye bisu malik Ndiaye su ma doon entré sax damay ñëw ah Sarr ah ah ah loolu dafa tënk kon dafa ñu ñëw dégg nga. ñëpp nangu ñaan ñëpp nangu ñaan Seydou Hadj Malick bi ñaan ñu àndale waaye Serigne غيرتي أنا سبي سرقنا مكر سمالك من سخل قادي مرسول سمالك ودحين كبايو خليفة بي من سرق بابكر ما خليفة سامس الدين وارث مالك على إرد المولى وعلى وإترتي أنا سبي بكر سهل صدر بارك اني بقسم ما مدام ولا قلت بارك لو يموتي وترسل صدر بارك لو يموتي بقضاء صدر بارك وصليت قلمه صدر بارك لو خطرت مالك صدر

Lẹ́ẹ̀mọ́ sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ fún àwọn ọkọ̀. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, Acusado, acusado, acusado, acusado, acusado,

ana ku bëgg sëñ Babacar ana sa tey sëñ Babacar jug nañ taatam taatam ana war na ko daaw ana war na ko daaw ana la ko matal matal ana matal yow kontaan naa ana Aliou Aliou Diop ana Basta Basta Basta kontaan ana Come on, come on, come on.

يا چور چور يا چور چور اتھ تک مو مڪن ٿا يا تڪا يا تڪا جڏهن وڏي ٿي ٿي يا ڪٿي ٿي ٿي يا

Make a time again. Make a phone.

Al-Amin,

وميامه ولم تزال الأمني واجب حكمك صلاح الجنة الأمني واجب حكمك صلاح الجنة لحسن في الأمري وحكمك الأمير الأمير واجب الأمير واجب إمساك الوزن الآمن الآمن أبو سورة الآمن الآمن أبو سورة الآمن Thank you.

مثل احمد عمر بدراسه الكتاب والمسند وملي بدر الفقه والنخوي منطقي بيان معاناه وملي النجوم وموصل قصد سيد الحاج مالك لحجك لا صوت الحاج مالك يا مصر خراب صوت الحاج مالك يا مصر سيرة المدرب الخوادة maa ngi leen ko nekk na jox sa morom loxo sa morom loxo ni ko baal ma ak baal naa leen baal leen ak yéen baal naa leen di am kontaan ci yéen ñëpp programme bi nag damay ñaan rek képp ku sopp Seydina Mohamed mbaa nga bëgg man ñu baax ni toogal xaar fii ndax Oustaz Malick Ndiaye daa génn yu bees tàq ndax suñu frère El Hadj Moussa mu soose Ndiaye waaye guddi dina way alaaji musalla talbi sëñ Tuubaa bi dina way insha allah ah sëriñ Njaay Busra mu ngi ne jóge ba salam wax deug yalla xamna dina way insha allah Amadou wad president kontane ci yow yalla ñu ngi ziar ñep di baalu ak ñep di ñaan ci yalla kep ku fi tew rek yalla na doon tank yu ci barki yu tayalla Muhammad ta yaakaar naa ni sa di nga ko am ndax chaque jour damay dégg si oustaz Malick Ndiaye ne jotaay yi képp ku ci toog li nga war a dund dañ koy bloqué ba nga génnaat baas bi waaw kay kon jotaay yi képp ku fi far ba woo yaakaar naa ne yiw la la yéene ñun danoo waroon ñëw kenn ku ci nekk fay far ba cent mille ndax ci jamono jii nu toll yaakaar naa ne yiw jafe na rawatina Ndakaaru li tax di nga tooñ nit lor ko te doo ko yëg ndax des nit dina romb nit wax ci moom ndax pas seen bay Abdou dañ ko laaj lan mooy wax lu dul dëgg mu ne mooy nga wax dëgg gun la laaju des fois nit wax ci nit dëgg te kenn laaju ko ko kon boobaa di ko lor kon nag kaddu gi day gatt na xar ba dafa baax damay faral diko wax ni ndawul guddi la kenn ku ci nek da ngay yaakar ni farba yow rek la amal affaire fi kon yaakar na ni fay bor dafa jot kon ni ma koy faral di waxe nit nak bu la defare lo xamanteni muno ko nga war ko sant ndax defa nit dina wax te la muy wax dina sa gën safe ci làmmiñu keneen waaye Farba taxaw fii naan ko Parcelles dañ laa bëgg ak yooyu yëpp tungu ne du teew ni nataal ndax nit moom yaa wax na ko léegi ci biir waxam sunu waay ju baax gi te ñàkk ki ñaan te mënoon a diis lool te diisu muy badu nii di borom ndomba tànk te nekk ci dëkk kenn xam ko te woyof lool léegi la wax ni lépp lu fi seize ak baas moom fay na ko te noonu lay def ak ñun ñëpp ndax ñun suñu groupe la bokk ba mbuur Omar Faye mii di suñu xarit nii badu mi waaye dafa am loo xamante ni nit bu lay defal loo mënul bu xew lay nga war ko sant dama koy wax Malick nee naa ko am na jotaay yoo xamante ni ay jotaay santante la ndax nit Serigne Babacar wax na ko nit kenn du ko xeebal soxlaam nit kenn ko xeebal bisam nit kenn ko xeebal sëriñam loolu nag kon tey bu ñëwee ba fii te dafa am groupe boo xamante ni dafa suudewu dama koy faral di wax ni li tax waruñu di lor nit ñi ñun danoo bokk soppe ndax képp ku bëgg alxaaji Malick Ndiaye ya karena di nga bëgg Mbaye Diagne mbaa nga bëgg Farba Diop mbaa Omar ndax ñi dul tàkkaloo te lépp lu muy wax di benn kàddu yaakaar naa ne koo ci bëgg bëggaale nga ki des kon dafa am kàddu yoo xamante ne kàddu sant la ak kàddu ngërëm waaye gën a jege gën a ay magam yi nu bokk ak ndey ak baay dama gis mag magu bopp mu toog fële te far Farba Diop ñoo bokk ndey ak baay waaye pour wax leen lu sotti am borom yéen dangeen ngeen nu dénk Farba ñun nu gën leen ko bëgg moo waral ba ngeen ñëwee ñi ñi occupé lépp mënoon ngeen ñëw te ñu bëri ngeen di waroon a diis lool woyof lool toog ci ginnaaw da xam ne ku maye ba noppi rek amatoo cër Malick ku maye amatoo cër suñuy mag dañ fee nekk pour wax la ni programme sunu boroom laa la bëgg a tegtal yonent bi màkka la juddoo waaye waa màkkaa tax mu génn màkk ba ko yàlla naan demal Medina mu ne ko yaa ngi may yóbbu yaa may yób yaa may génn ci dëkk bi ma bëgg mu ne ko waaye dinaa la yóbbu fu la ñëpp bëgg loolu demee na Malick waaye dama bëgg a seede ni programme suñu borom bu ko nit nanguwul rek di sonn loolu rek a waral kàddu yi moo tax waa Medina bëgg yonent bi ba gëmeewuñu ko Farba ba mu jógee Ndar ay mbokkam a ngi fi yor kër gu yaatu yàlla séddeenu ko mu nekk nag man Moustapha Samb mii di sama mag moo nekkoon moo nekk président daayira bi sama mag bu jigéen nekk présidente bi kër gi sunu kër nekk siège daayira bi ñu yaroo ci daayira bi màggee ci daayira bi heure bu nuy musaan ñëw Ousmane Kane bu ma diree yóbbu Tiwaawan du kenn yabal ko gàmmu ma ànd ak moom moom mu des ci daayira bi moo tax gën a jege gën a yey gis nga nit danga ko wax mu laaj ko Njaga ne dëkk bi kan moo fi dàq waay mu ne kenn ku ci nekk ak kalay ku juum ni yow rek a mën yaa ngi ci erreur Abdou Aziz la ne roy wala du kenn te am na si ñoo xamante ni dégluwuñu ñooñu xarbal rek la xaar mu wax seen rab yëngu li tax nag ñun waa kër yonent bi nu war a gën a fonkaat yonent bi ndax da ngay dëgg ku la mag foofu ëpp la daraja foofu jug ñëw may la nga toog boo jàppee ni yow la rek yaa ngi nax sa bopp yonent bi rek ñun amuñu fayam barke alxuraan yonent bi amuñu fayam moo tax boo ko weddee laajal suñu soxna yi képp koy wujjeeg ñoom yaa ngi ci erreur ndax danoo mën bis seen gaa yi danoo ànd ak ku mat a ànd ak ñu yonent ak Malick Diop waaye yéen jox bi ñu leen joxoon Farba rëcc wunu loolu ndax Farba bii rek bi bi ñuy jul ci mis laay tàggu sama yaay ni yaay maa ngi dem ci Farba muñ fekk yàgg mu ne ma lemin man amaguma paas ma ne ko naa la indil oto bu jekk yàgg mu man de oto bu ma dugg sax du ma yeggee moo fanaan damay teel si waat ndax Farba jar nag kooku am na ngërëmal ndey lii may wax man du ma du ma jul fi man Mouhamadou Lamine laa tudd du ma mi am na ngërëmal way juram ma dëggal leen ko tey jii am na ay ngërëmay magam ma dëggal leen ko tey jii am ngërëmal goroom ma dëggal leen loolu am ngërëm ay moroomam ak i doomam waaw nee na maam Fama nee na Farba am ngërëmal jabaram ku ko roy roy jigéen ju man fa maa tax ku ñaanul di waa samba Chérif Arba gi sunu sikkaam jigéen ju ah sëriñ barke mooy cërëm Farba mi ku ko roy roy Chérif Arba ku la roy kullar ayrı kullar ayrı kullar ayrı şerif orada Kukoray raydi gel duba ah maa seede loolu grand. ceebal nanu déggal nanu. sa témoin am na sens. waaye maam Fama noonu la war a mel. mbay. maam Fama noonu la war a mel. ndax yaayam dëgg sëyloo ko dana wax ni taasukat yi dañuy wax ni jabar goro boo amee goro am nga jabar boo amul goro amoo jabar waaye Farba am na goro li tax a ngi toog di bëgg a déglu ku baax kii Seydil Hadji Malick waaye nag bis bii bi nu ko tàntee wax naa la ba jaaj danoo liyee bâche liyee chaise liyee solo nit ñi fi ñëw kenn mënu leen waaye ñi nga jël cër jox ko ñu bàyyi ànd ak seen bokk bàyyi seen temps bépp tey Farba jël seen lanu am te wax naa la ne la keroog ba ñuy jox màgget mi njaay mi carte wax naa la ne la sunu bàyyi bu baax day faral di wax ne maam Fama ki yëkkati carte ab lettre jox la ko ne la sama bis naa la bis naa damay def taat soxna suñu Babacar wala damay def moo xam lu mën a woote ñaanal ñaanal na la ñetti ñaan yoo yëgul ñaanal na la nga gudd man fan ba fekkee bis ba Babacar dégg nga ñaanal na la Moustapha nga gudd fan ba fekkee bés ba man caa teew ñaanal na la ba boo guddee fan ba fekkee bés ba nga wér ba man caa ñëw ñaanal na la boo guddee fan ba fekkee bés ba boo wér ba man caa ñëw nga am as ci sa poos ba toppal ko ca dara indil ko loolu la marine bii def ñu ne dañuy jox Cheikh Mourtala mu joxeel ko lettre am bu pare plus rek incha allah ñu euh, gagné du temps ndax ñëpp nga xaar jëmm ji Seydi Alxaaji Malick waaye tabaarakallaahu farba am na lu mu santaane muy ay sant gi ngërëm waaye waa dayri bi itam def na lu am solo muy décoration boo xam ne dañ koy décorer farba Diop al amin loolu itam incha allahu dinañ ci ñëw léegi ñu toppandoo ci sang baax bee di Oustaz Kalidou Mursala bismillah di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm di ñaan yàlla boole ñu defal jàmm barki borom bu baax moo ngi seere baax mbooleem kilifa yi teew si yëpp ba ñu si jiitalee sunu mag sunu kilifa sunu wajur si Moussa Samb mi day daal di yóbbaale Alaaji Malick ak kilifa yu baax yi si Moussa waaye tabarkalla toogaay bi rafet na lool yal na yàlla barke sëñ Farba noo ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ak contentement bu baax ci bis bi di ñaan yàlla nga yàgg koo teewee téeméeri at fanweer yu tàmbalee ren te lépp ànd ak xéewal ak ngëneel ak mboolem ñu ngi ko àndal ñëpp man nag yàlla dafa dogal ni damaa war na yeewee ko ndax damaa defagul jëfi si leen ak jëfi sàmbeen yooyu xeet yooyu te te te waaw te buñ xëyee war a war a war a war a kii ah moom day moom day daa mel ni fu ma tasee moom def na ma lii damaa xamul nag li may kàll ba léegi leeragul ci man waaye maa ngi ñaan yàlla barkeel te yokk xéewal yi moom suñ pap ku baax la di sunu mag di sunu kilifa ci lii ñu def dàq ñu ko waaye lool yàlla na yàlla barke ah suñ farma lettre bii de soxna Njaay mu baax mii di taalibul Seexul Xaddim yàlla dogal mooy sunu wóllëre bi mu dugg si baax bi dafa bëggoon mooy taxaw na lay duggee ko duggal ko xasida ndax moom dafa bëgg sëñ Tuubaa daayira bi ñu nekk muy daayira soxna jaara bi ñoo ci bokk nekk saa su nekk mu yëkkat ay xéewalam dañu ko jox te jëmmi sëñ bi rekk tax يا سيدا في المال خبل سرواه ويا محبا فؤادي دار مسواه يا سيدا في المال يا سيدا في المال خدر سرواه ويا محب الفؤاد دار المسواه مولم كو في گد سيدنا محمد يكت سلوخ في ني ماغال با يا سيدا في المال خد الازروا وسرن فلنه ويا مهيب فؤادي دار المساو إني أتيت لوجه الله سائركم أبغي به نيل ما أرجو واو سرين فلو مكينا أنا صب سرين فلو بايو بين سرين فلو مكينا وبدعاء يصرف البرايا وبرجاء يجد العطايا صرف المكنين إني أتيت لوجل سائركم أبخي به لما أرجو وهو نجب دفن مقل محمد رسول الله وبلا

واغفر لوالدي انا كسب وجري دفلني مقدر سني واجر واغفر لوالدي واغفر لوالدي واغفر لجميع اهلي وجملة صحابي يا سميع واغفر لكل ذي تحلق يا واقع سعادتي يا ربي والطف بنا وقوينا وقل لنا وأمرنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقت به حاجة كل مسلم أيار العالمين محمد الأمين لا يدعونا أيار العالمين محمد الأمين لا يدعونا قبل بين يدي جنار العالمين محمد منا ينين يولا يا رب العالمين محمد بين يدي يا رسول الله لقد دون من قلبه جنا الله ينين يولا يا رب العالمين محمد بين يدي أنا صبي يا رسول الله baay julli taxaw Njaay bu baax bi moo ko daal eh, eh, di te yàlla dafa def ni bu la tuddee bis ku nekk bu amoo doom tuddee la ko am na yéene iya ji soxna nee na xam na ko gi ak jàpp gi ak safoo gi yep yëg na ko ndax Seex Abdul Ahad Mbàkke day wax ni nit ku la yëg na ko faale ku la safoo nga bëgg ko ku la ñàkk yëg nga def ko ni comme ku yàlla bindul ndax maye ak raye ak xaña suñu borom ma yor kenn yoru ko nee gi ak safoo gi ak faale gi yëpp yep nako waaye mi ngi lay bàyyee ki mat a bàyyee muy Seyduna Muhammad ba li nga bëgg ci tagg gi nga eh, nga di ko tagg ak bëgg gi yëpp mu nangu ko te bu ko nangoo ful ko dafa la xewar a ki gëneel yàggale ci kanamu njaboot gi ba say naan ci njaboot gi yëpp ak naa ne njaboot gi ci yow yàlla àggale ko loolu nee na mi ngi koy dogaan Seyduna Muhammad di ko dogaan yaakaaram ja Cheikhul Khadim. ndax muy dégg lu ko waay def. ayla gaay mi bàppi mi dogal daan nga seeteleen loolo Seydi Abubakar daan nga seeteleen loolo fayal dafa jaay Seydi Abubakar daan nga seeteleen loolo mooy kutubul xaafi xayba kutubul xaafi xayba kutubul xaafi xayba kutubul xaafi xayba kutubul xaafi xayba bayna mashriqi wal magribi Yes, sir,

serious Payo mo sa araw Kami pa'y sa magkakaroon Sa tumahan sa sa Sampai jumpa di video selanjutnya. ku bëgg Serigne Baba ku bëgg Serigne Baba mbay jànda mbay jànda mbay jànda mbay jànda ku bëgg Serigne Baba ab si la yaay soppay du kenn na may ab si la yaay soppay du kenn na may góor gi ndaw gi nga béyee wuyoo adama

jërëjëf Amadou kon tabarakallahu am diine na lu ananda dokkeli faama ko baax faama faama fay nanu anana dokeli fama kuba nam fama jamu limo wa sama gayo ba lede nanu anana dokeli fama kuba baax yéen. waa ji déglu ma ma way. ma ne ko faama. day ceeb mu neex. goyaasa mu neex. day sëllu xumal. lu ñaaw. wax lu ñaaw de ko baax. ña مكلفا أنا وعين العالم مكلفا مكلفا يفا مكلفا ويا سلام دقيس اللحم دوا خلنا دوا خلنا

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما جنوا واجت أبي يبقى زيارة جنوا حاج فرب مي تبارك الله يرجع يوبي واتتكسانو سرين بابا كرسي جنوا عندك ودائرة مالكية بو فنكات تبارك الله خمني شاك كنزن فرب موي نيو تقل لين ينتهي صلى الله عليه وسلم حاج مالك مي موم موكاي بو فر بليتي حاج مالك فيكو تي سيدنا محمد تبارك الله نيوم ني نيت نيو باخ نيو تيد سوتو نيو كودول سيرن مودسي جوتاي بوبو تبارك الله موتاخ نك باي سين ييتي نيو فك حاج فرب مي تبارك الله وني farba yeg nañ ko lol tabarakallah wa suñu yaay kons neena assalamu alaykum wa rahmatullah neena kaddu yi du gudd neena dal ñi ngi jéggalu bu baax neena dal ay kilifa ñoo fi tok te ñom seen kaddu warul jog neena li ñi ñew dal moy ci alhaji farba Mi. nee na suñu njiit muy Adja Paya moom moo leen yónni nee na tey jii daal suñu yaay Adja Paya moo fi waroon taxaw nee na dafa voyage yi nee na mi ngi mel ni ñun ñoo fi nekk nee na alxaaji Farba mii xewle nee na yow Farba mun ñu wax ci yow nee na baax gi sa mbokk la njëkkee ba pare ñoo la ko njëkk wax nee na daal nit dañuy wax ni buñ naan nit baax na dañ naan ndax mbokk yee ko wax bu ko mbokk yi waxee rek baax na bu ko mbokk yi waxul nag baaxul waaye yow sa mbokk njëkk wax ni yow baax na nee na daayira bi daal yaa fay jiitu tey siir tey wëy wëy yëpp nee na daal day ñëw ca daayira ba wéy fa wéy yu neex a neex tabaarakallaahu nee na xale yi dañuy yàkkamti bu far ba di wéy ñu kontaan lool nee na macha allah yal yàlla guddal fan bi yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla suturaal ko daayira bi kontaan nanu taxawaay bi rafet na ñu ngi sant. di gërëm wax dal nee na mënul wax nee yàlla subhanahu wa taala xamna ñi ngi sant xale daayira bi yëpp nee ñu bax lañu am yar am teggil fonk daayira bi nee wallahi yéen xale yi da ngeen fonk daayira bi nee lu tax ñu fonk ko nee na dañuy ci këram waaye ni ñuy waxee ci ni ñuy duggee ci daayira bi xol lañ koy waxee. nee na nag bëgg nag waa kër Cheikh Seydi El Hadji Malick ji. nee moom day xool di seetlu waxoon na leen seen kër rigueur bi ngeen am ci daayira bi. nee na ñun ñii bañ nekkee xale bu ndaw. نانا كير سيري عبد العزيز دباخ لا نيكون نانا ما شاء الله تي شال حاج عبد العزيز دباخ تي ادم بلا دانتو خالي ولا نانا والله لول لا غيسيين نانا لول نك يالا كي يالا دخل يالا لين يالا ديف طالب شيخ يالا يالا تاخو لين ار لين موتشل لين داير بي فيم بك دم يالنا كفا يالنا تحول أمين تبارك سيدنا محمد الله عليه وسلم أمين كنت أنا والسلام عليكم ورحمة الله بمحمد وببنتي وببعليا أنا كصف يا رسول الله بمحمد وببنتي وببعليا محمد يمين وابنيهم ستين أعلى للهدى نبي وبصحبي والتابعين له فوق صداتنا أهل المكارم والندى فليس سخام العبد وسم كربه يا خير من مدى العصاة له اليدا النبي فرد هموم المسلمين وكربهم يا خير من مدى العصاة له اليدا كسب ينتبه def leen ni ñu màggal yaa rasulallah ka tëdd ca Medina sayyidil mursalina haadil baraya li ridallahi walidi zahrai ya azuli fama li indi nasir يهؤاتي دعني ولا ميلائي إن حب النبي حالة اللحم وعزامي والدم دون الرياء أنا كصب ينتبي سيصيد الحاج مالك بكر الدرمان أرم لوكم بشام بوكم بند بات بند خريال بوكتور برم ما دهر جادة بمالك وكمالك كالدهر مرة بمالك للمالك أنا كصب سيصيد الحاج مالك مودم عثمان مم يقنا دان مم مودم مودان te kenn du ko daan mam ba yoo fi sam tool sëlxal ci yamba naaf si say naaf jaayi ko Tambacounda man Maodo demoo ba gànnaar nga wut fa say naar ñu xëy di la nar la xew fa gànnaar ana ku sopp Cheikh Seydil Hadji Malick Maodo mu Ousmane moom yàgg naa daan moo daan te kenn du ko daan faqdar ruati la ardu wala asdaaru xada xaaba يا العام عام الفتح والرحمة صلي لك يا إلهي وجزي أن لمثلني فاقدرت الأرض ولا أشجار قد خملت فسمي العام عام الفرح والرفع Sidi Aboubacar Sy ma Thank you.

gogo shari'a su nan gogo su fada ne kama ka ta choko da ma safa akmar wata zambi yawa ta kafa rawa Kere asha gogo shiri shida gogo gogo

پراں دے بن دے بن دے بن دے بن دے بن دے بن دے بن yàlla yàlla guddal Ababacar Diouf jërëjëf yaa ngi bu baax waaye bi moo ko moom moo ko ay saan أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم ولا حول قوه الا بك يا علي العظيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن شيخنا ومربينا ووالدينا ووسيلنا وحبيبنا وملازنا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وارضانا به آمين ورضي الله عن شيخنا أحمد التجان شريف ورضي الله عن خليفة ما بين الأرض والسماء شيخ سيدي أبو بكر سي رضي الله تعالى عنه ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته noo ngi nuyu di ziar ñu baal ma tuuti rek ci Omar jaar fa Farba jaar fa gaa jaar fa su ma fa jaaraatee jël trent minutes ñu baal ma rekk ku am mag da noppalu ku am mag dangay noppalu loolu la yàlla dogal bi ma dugg see ci tànt bi ma gis lenn ci dogu dogitu maam alxaaji soose njaay muy sëriñ Moussa njaay mii di sama mag ma gis ko rek ma ne ko kon noppalu naa ci lim bi ndax moom bu fi toogee moo fi nekk sunu kilifa ma dénk ko nuyoo bi rek mu baal ma jottalil ma ko ndax guddi na ba pare te yaakaar naa asalaamu aleykum bawul kenn xam ngeen xam naa di ñaanal farba yàlla gën a guddal fanam ci barke yonent moom ak équipe bii ñu ko séqal ak ay magam ak ay soxnaam yii toog ñaanal leen yàlla barkeel ko di sama xarit bi nga xam ne day waaj a dem Alioune Badara ñaar Moussa daf ci suba bi ma woowee dama ko ne bul ñëw maître ñaam yi bi ma woowee sànq dama ko ne bul ñëw daa wax a wax a wax a sonn ma ne ko bul ñëw ne ko xaaral ma paas la farba nga ne ko dangaa feebar te dafa feebar ma ne ko dangaa feebar bul ñëw ma insister ba paas ko farba booba farba xam na ni wérul farba nangul ko lool ma dugg ci salle de bain bi sangu génn bi sol yére mu woo ma ne ma foo ne ma ne ko maa ngi kër ga mu ne maa ngi nii di génn xaar ma loolu nit munu ci dara toogaay bu yag bi munu ku bax la musa ku bax la nit ni dañoo nit ni nit ni ñoo ñoo xawa a léeg nga gis nit tok ci télé bi te limay wax suma ko waxee ñii sama xarit yi duñ ma jëpp farma nag bu dee rek téléphone bi da koy mën bàyyi 10 minutes ñu jakarlo 10 minutes rek ma dem demal demal bu fekkee limay wax ñii duñ ma jéppi sama xarit yi mooy léeg-léeg nga gis nit toog ci tele bi ne diw defal na ma nii diw defal na ma diw defal na ma diw defal na ma ma ne dangaa bëri wax di wax rek waaye wala nga gis nit téye micro ne ci tànk bi diw defal na ma lii diw defal na ma lii xaaj kabbu ma ne dangaa bëri wax di wax rek barki démb dañoo toog maak moom ak Omar di di ci tuddam doom bu mu am maa ko tudd ci tudd la ñuy toog di waxtaan yi mu ne ma maa ngi ak benn oto mu may ma oto may ma oto te man bëgguma jëli oto bi. jëli ko nag. barki démb. dañoo toog rek mu ne ma maa ngi ak maa ngi ak benn 4 4 7 place bi nekk fii Kër Massar mi ngi nii toog Omar Faye ñoo toog di añandoo mu ne ma oto bi Omar Faye bii moo ma woo ne ma nañ fa dem mu dugal ma ñëw jël si ma kër ga ak otoom bii mu ma indee. jën si ma kër ga yóbbu ma ba foofu wan ma oto bi ne léegi bu la neexee yóbbu ma ne ko waa baax na du gaat oto bi ñibbi si ñëw toog bàggoog oto ba lu lee la ñuy defar moo tax ma ni ko foog nga toog walaay def maa bëgg waaw loolu defe naa ni xam nga day am doom góor mu dugal mu ne day loterie man ak ay magam kan la ko siy tuddee man xam naa ni xale bi man la ko buggoon tuddee mais mais bi ma ko waxee laa xam ne xale bi man duma ko duma ko tuddee sa bopp magam laa koy tuddee ñan yal na yàlla yokk yàggal teraanga sa loxo yal na yàlla yàggal teraanga sa loxo ci barke nañ ci luñ ci mën a wax daal mooy mooy il faut man yi da toog ñu ñu seede ko ci kanamu mbooloo bi ndax bu la ñuy defalee ay teraanga ay teraanga laa wax te rek ay teraanga la foog ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàlla guddal fan yi ma leen di ñaan ngeen ñaanalal ma ko yàlla mu wér waaw may waaw yaay wallaay ma ñaan ngeen ñaanalal ma ko yàlla mu wér ah, maam as damaa bëgg nga dogul ma ci yàlla moo ànd ak wér ndax bu wéree waxuma man mais kuy takkatu yeneen ci lam lay lam la fas yéenee dencal si sama soppe bi maam Bamba waaleykum salaam lam la fas yéenee defal ci teraanga kon yàlla na yàlla barkeel عبد الله شعر إن لا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم yow ci li ma doxoon ma ne la bàyyi ma ma dem ba pare nga bàyyi ma wax alquran nga may dàkk non dafay diis sama papa lii la daan bañ day bañ micro yu bari inna laa yaamuru bil adli wal ihsan wa iitaai fil qurba wa yanha anil faxshai wal munkar wal baxi yagdahum moom baa xam nga ni bu waa kër Farba taxawee fii seede il faut que ma indi len aya alxuraan bi woné ni farba du samba ala ah waaw du samba alaar de farba. bàjjen umi yal yalla yàlla guddal sa fan. yalla yalla guddal sa fan. wallahi deug la. wallahi deug la. wallahi deug la. ya bayil mom buy wax ak man rek di joy inna la ya'muru bil adli khola déglul tuuti Serigne Babacar nga dégg nii ndekete yoo coow li coow li la ñu yàlla digal muy ñett la yàlla tere muy ñett la ñu yi loolaa waral ñu am problème ñett lañu yàlla digal tere ñu ñett ma yaasin oustaz sama sëriñ ñett lañu yàlla digal tere ñu ñett haj kabu yaamuru bil adli bankar wal ihsan wa itaay zil qurba loolu digal la wa yanha anil faxsha wal munkar wal baxi muy ñett la la teg gis nga yàlla ne yaamuru maa ngi leen di digal bil adli farba juub boo jugee ndar ñëw Dakar yemale woo waa ndar ak waa Dakar yaa ngay tooñ Aline Badara ñaa maître ñaa su fekkee yemaloo Malick Ndiaye ak sa xarit beneen boo xam ne daa ñëw am problème Malick am problème nga yor dossier yi te yemaleewu yëngu dëkk bi day yëngu looloo waral ñuy mere président mbaa ñuy mere gouverneur mbaa ñuy mere nangam nangam ndax day jeng yaamuru bil adli yemale leen Moussa ki lay may dix ak ki kilay ki lay jo ki lay saaga tant que yemale woo leen euh, Ablaye am ci yàlla dara dama ne ki lay may dix mille di la neexal ak ki saaga ndey tant que yemale woo leen doo am ci yàlla dara lu jafe la nag ah du yomb moo tax ki lay ak ki jox tant que leen Abbas yàlla nee na mënu koo am ci man dara ana kan si ñun man ma wàccee ana kan si ñun ci diggante démb ak tey moo deful lu neexul yàlla man wàccee naa ku ko deful rek ci diggante démb ak tey ku tooñul yàlla na yëkkati loxo. bay bay démb yaa tooñul yàlla. Ah. jërëjëf bay jë alhamdulilahi rabbil alamin xam nga tax ma sant jamono ji ma waxee ana ku tooñul yàlla yëkkatil sa loxo mbay jaan moom moo dëgër fit wanee ni moom tooñ na yàlla ndax tooñ yàlla mooy tooñuma yàlla. waaw fii de suñ demee ci loolu sax day sori cher. yow la tooñ. yaamuru bil adli yàlla ne dama leen digal ngeen yamale seen dund bi nekk ci biir kër gi waaw jërëjëf ñaan gunge ko ndànk mu dem ñaan ñaan ñaan gunge ko gunge ko mu dem waaw jeex na vou li nga bokk moom baal ma def ko nii li nga bokk baal ma def ko nii ah déedéet li nga bokk farba déedéet farba bu ma jox boo ma joxee suñ paree doo ma yeewi xam bil adli ku tukki ñibbisi kenn namu la mbaa nga dee kenn jooy la ah goro dafa am solo de Adja goro dafa am solo de ajaa Faat si mii nga xam ne moo ñu may Adja Rosette jërëjëf moom dama li ma koy faral di wax dama naan ko tànt woo ma fekk dimbali ma gaawal génn Adja Rosette bu ngeen toogoon fii léegi mu léegi sooy wax ci yonent mu tekki ay takkaayam buy dem programme waa këram dañuy tëj ay ay ay biens ndax lépp la lay jox moom toog soxna Faat si ñu ngi lay nuyu nuyu bi nag lay demee rek Moustapha ci xam naa 40 minutes maximum ndax toogaay bi yàgg na. mënatuñ fi yàgg ndax sëriñ saa ngi fi ñoom ñooy mën a àggali jotaay bi maam as badiane yàlla yàlla guddal fan bi ak daayira abraar lépp dara yombul daal ñëpp xam ne daayira abraar mu fomm bisam loolu bu ko defee ñëw ci sa programme ñëpp xam ne ni bàyyi nañ la xel te daayira ñëpp xam nañ ni dañoo bàyyi xel farba yaa moro bil adli sa élève wal ihsan wa بالفحشاء والمنكر يغنكم والبغي نني يمله موسى man xawma ci dara ci ay galon nañu yemale ndax man benn laa am waaye yow mi yor ñaar ak ku yor yemaleel Moussa nee na du yomb yemale maam as tant que yemale ki ci biti ak ki ci kër gi yàlla nee na sa garaat yi ngay yóotu ah, alaaji Malick borom ñaari galon yi garaat yi ngay yóotu doo ko am doomu aadama yi dama ne mënuñoo dëkkoo ci di tooñ yàlla yàlla di leen baal te bu la nit ñi tooñee duñ ko baal wal kaazimina al xaysa wal aafina ani naas wallaahu yuhibbul muxsinin sama sëriñ jamil dama ne mënoo dëkk ci tooñ yàlla yàlla di la jox dépense yaay mënoo dëkk ci tooñ yàlla yàlla di la jox dépense nga dëkk ci tooñ yàlla yàlla di la jox dépense ku la tooñ nga ne doo ko ba yaay kan yow yaay kan këy di tooñ yàlla guddi ak bëccëg sax ci dakk na dakk loo ñaan yàlla bu may la boo baaloo mu baal la ku la tooñ nga ne baal yaay kan jërëjëf yaay yaa muuru bil adli première dame lu mu la jox bu soobee yàlla première dame lu mu la jox day daj day première dame ngay daj yu des dàq lu mu la jox daj lu mu la jox yaa dem lu mu la jox bu soobee yàlla dama koy compter par benn mu ne li tax ñu baal ma li tax ma arrêté dama koy compter ndax loo ko jox bu soobee yàlla lu mu la jox doo ko sax booleeg li ñu ne mukk la la la la kàbb première lu mu la jox di nga ko di soobee yàlla bu ne da nga koy triplé de ci koy yàlla leeral ci côté boobu lu bu la waxee benn fukk nga ko koy delloo. yaamuru bil adli yamale leen. walaay walaay bàjjen wax nga dëgg ak a baax. amin amin kàbbu ak baax. boo gisee mooy ñëw daar sama xel bi daal damaa bàyyi si ginnaaw jongoma ju baax. ñoom ñii ragaloon nii tubaar fakkaar. yàlla na yàlla barkeel leen te te te te te te may leen jàmm bu leen am benn yoon wujju yamuru bi laa dégg naa la Cheikh maa ñëw Cheikh Moussa Ba yàlla nee na ñu déglu tuuti nag aaya bi balaa may wàcc suñu soppe bi mooy ñun ñëpp ki ñu bëgg yamuru bil adli yàlla nee dama leen digale ngeen yemale wal ihsaan tey rafetal doomu aadama yi nañ rafetal Amadou li nga xam ci nit lu ñaaw di ko wax xam na ci yow fukk yu bon noppi te wax ko Moustapha Sam dama ne li nga xam ci nit lu ñaaw di ko wax moom xam na ci yow fukk te noppi waale ko moom li nga xam ci lu ñu safaan ba di ko wax jàppani koofu xam na ci yow téeméer noppi waaw li nga xam ci nit ki lu ñaaw di ko wax xam nga ci moom lu baax lu tax waxoo ko jàpp internet bi nekk ci mbooleem luy rey nit ak luy lor nit yaa koy génnee ci internet bi te yàlla nee na mbaa xam ngeen ni ki gën a bon si nit ñi mooy ki nga xam ni mi ngi yittewoo ñi koy waxal ayibu nit waxuma ki kay wax de yow mi yittewoo ñu lay nettali ayib nit yow la ñu wax yàlla ne yaa gën a yées waa lu xewati lu xewati lu xewati ñëw ne lu xewati yim nga li xew may ma ci may ma ci ñëw sëgg di dee xanaa xamoo léeg-léeg sa kër yëngu nga tëdd ba guddi kër gi bëri coow coow li bëri coow li bëri coow li bëri nga gis ku fëkki fee ñëw fëgg kën kën kën ubbil ñu ubbi lan la lan moo xew lan moo xew nga yaakaar day atte attewul daa bëgg a xam lu xew ah mooy mooy mooy topp kaa ngoone ñëw fëgg salaamaaleykum Omar bàyyi jàmbur Omar bàyyi ko Omar yërëm ko Omar yërëm ko Omar naan daf maa yëpp léegi nag bu Omar melee ni Malick Ndiaye matati commencé yeewee ko di wax rek def na ma lii moo ma def lii moo ma def lii ndax kooku di enregistré rek di enregistré rek di enregistré rek ba pare nag mooy toogaat nag jooy la leen problème bi jooy la leen ko yedd leen arrangé leen jubóole leen. génn nga ne problème bi jeex na nga romb ci mbedd ni ñu nga waxal nit mu naan la da nga maa mën a wa jaay lu ma saf barki démb ci guddi bi ngay dóor sa na yëg naa ko barki démb bi ngay bi ngay xulóog sa soxna barki démb sa soxna bi mu lay wax nangam ak nangam dégg naa ko di te kooku nekk fa ki leen attee ko ko xëy ki leen attee ko waxe laa wax wa يالنا ديالنا رفتال وإيتاء ذي القربى لولا تي سخلوون بو غيزي مو جيل آية بي لي غرافي واخ تي لا يدال الخلم موي إيتاء ذي القربى لو ياني بايك بايك terewul farba fàttewul leen buy waxtaan ak ñun dina wax sam papa mbaa Amadou Lamine mbaa Maodo mbaa Assane mbaa Malick mbaa kër ga nangam ak nangam loolu laa leen di bëgg a xamal mooy lu ngeen ñu bàyyeeg bàyyeeg farba itaa isil xurba bis bu nekk farba xelam mi ngi ci ay mbokkam looloo waral mu woo xale ndari ne leen yéenay ubbi programme way nañ ci lu neex xale itaa isil xurba xoolal dafa dafa moom programme bi mais mais da koy yàq ci ay fraction de seconde xool ko rek <laughs> ah ma bàyyi ko ma jërëjëf Moussa léegi yàlla nee na Omar dama leen digal kàppu ix ngeen ngeen di wax lu rafet tey yemale waaye bu leen ci yem de ñi leen jege ñi leen jege ngeen fonk leen Pape Khalifa Badiane ku mu wóolu Alaaji Malick Badiane mu jox ñu ko moo ñu gën a jege ñun dañuy fexee jege ko ba defaral ko ba mu baax ba moo gën ñuy dem Tiwaawan naan foofu la ñuy defar yi dee fii la ñuy jaar bu àgg Tiwaawan beneen première dame ngoog dafa beneen première dame bu la sama goro ñëw na laala yeneen bi moom ndar laa nekk di waxtaan sama goro mu topp ma rek oustaz ma yaasin may waxtaan ngénte Cheikh mbay mu topp ma rek yor yor ëppukaay bi naan ma nii ma ne ko yaay ba may ëpp may waxtaan damay gën a sedd bàyyi ma mu ne ma dangaa tàng naa la ëpp ma rek naan ma nii ma ne ko goro nag goro nag balaay neex dëgg-dëgg goro da lay nopp waaw bu la goro doonee rek baax yàlla nee na lii laa leen digal waaw Moussa ndax lii leen yàlla digal li leen yàlla digal ndax lii ma leen wax nii bu leen yàlla digal bu ngeen ko defee da ngeen am problème déedéet لكن من اللي لا لنكر دقلون ينحى لما لنكر أن الفخشاء والمنكر هم نفخشاء المنكر بقول نياري نياو تيفلا نياو تيفو بير نياو تيفو بيتي والفخشاء مو نياو تيفو بير نياو تيفو بير موي كي نيا خامني خول بي منول موج موسى جاي لي واو فيبرو كانيان بولا دالاي سبير خول بي dalay lekk loolooy wal faxsha mooy yaa ngi téye lu lu lu bon yàlla ne bul jàppalal nit lu bon ndax jamono jooy jàppal nit lu bon man ngay attaqué ndax man maa koy may li muy am yow mayoo sa bopp moom mayul boppam man maay mayee lu ma neex maa koy def diggante asamaan ak suuf lu ma neex moo fii am diggante biir nit ñi lu ma neex mooy am xul yàlla wa maalikal mulki tuti mulka man tashaw wa tanzi mulka mi man tashaw wa tu'izzu man tashaw wa tuzul man tashaw bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir turji lana wa turji naar fi layl wa turji al hayy min al mayt wa tarzuqu man tashaw bi xayri isa lu ma neex rek laay def waaw su ma xoolee musaa def ko mu am li mu am luy tee nga santale ko ko da fiix mbay jaan wax na ko léegi wax nit mayam am mayam wàññiwu sa may ma mbaa xam nga ni dem ci sëriñ farba lii mu am bu mu ko am di xaatim سرين بي خاتم سرين بي خاتم جزاكم الله خيرا ياي يا عدل سوا ياي موي خاتم موي خاتم دي خاتم دي خاتم والخياز بالله بمالين جاي نغا خاتم كو بمالين جاي دي ام لاي نغا ديف كو بمالين جاي واتش بمالين جاي دي ها نغاو لو خيو ليغي نيت كي بامو دي موسى با بار بالله لو تول ني بيبو تارفتال عيني تي ورسغل لو تخ يالا جوخلو xoolal lu doon nit bépp ci wërsëgam lu tax yàlla jox la ko bu doon yàlla day joxe wërsëg di ko jaaral si nit kii ki ko moom ko di la ko jox keroog suñu bab xalifa ba yaan bu mu génnee doo fa ñu añati dama ne bu nit doon dundal nit du dundam ci yow la aju keroog suñu bàyyi xalifa bajaan bi mu génnee àdduna dootoo ci dootoo naanati da ngay dem wuyu ci ko moo ne kenn ñoo bëgg baay barki démb suñu frère suñu sëriñ suñu soppe wala suñu wayjur Abdoul Aziz Seen dafay julli téye oomam fa fa la ko yàlla fekkee si julli tisbaaram ba diggante Mor mais ak kàbbu mais ñoom ñoo ko assisté bu muy julli tisbaar la téye oomam fa la génnee àdduna ñu yóbbu ko armeer ya bëgguñu ko mbëggeel bu toll ni moom dañuy wàññeeku kay. da bëgg àggul ci nga yóbbul non doo ko def li ngay def kay mooy suul ko te naan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla jéggal bàyyi ko foofu wëlbatiku naaj bi tàng ci kawam yow nga ci baas bi waxtaan lii ku mu waarul wërsëgu yàllaa ko yor kenn yoru ko yàlla mu ne wal munkar yu ñaaw yu ñaaw yi wal faksha yi yu ñaaw yi ngeen téye seen xol yi bàyyi leen ko olof ne moo ne Mabou Farba la Maram Cissé mu ne olof dafa ne lu néew yi lu lu gaañu néew yi feeñ lu gaañu Ablaye néew yi feeñ xaw ma ndax dégg nga olof boobu dama ne lu gaañu néew yi feeñ xam nga mooy la mooy ma téye la xolu kañaan di ko téye di la gis di ko négocier su ma la gisee nuyu la Babacar kër maa ngi lay ziar maa ngi lay nanga bu ma Babacar Seye wane ginnaaw sama xol biy tàng ma koy jàppoo noonu xol biy tàng ma koy jàppoo noonu xol biy tàng benn bis dana ñëw rek feebar boobu ne tëll génn ci biti Babacar Seye xam ne na ne Mali Ndiaye li ma doon wax ñëpp dara lu ci dëgg te teelool moom li muy am mu koy am man ma am problème yàlla mu ne gis nga yàlla ni ko toppantee wal faxshaa yi ñaaw téefu xol yi wal munkar mujj naa feebar ba génn léegi nag fi fi may fi may bàyyee ni nag dugg nekk ci sama waa ji mooy wal baxi sunu waa ji wal baxi si gars yi farba ci kaw lañ la teg far ba ci kaw lañ la teg tegal la table jox la micro nga sañse a rafet toog ci kaw say moromu bàyyi toog ci suuf ñëpp toog ci kaw man ma yeg si léegi déedéet déedéet déedéet sa cër la ma yegg si léegi toog ci kaw sama doom ji wala sama rakk ji jug fi ma toogoon ci fauteuil bi ñëw uuf ma ci suuf yàlla ne maa Malick Ndiaye maa ngi lay may bët wal baxi ndax da ngay beew ci loola loolu ndax da ciy beew ndax xale bii toog ci suuf ngeen defee ne man maa ko gën déedéet xale bi ma gën nekk sangaa tax mu ñëw teral ma ndax bu toogee ci suuf su waaye tolloo fee su sama séenee rek dina ne xam ne kon kee moo war a waxtaan wala kee am na cër si jotaay bi moom mii moo tax ñu xam ne am naa cër si ku ma xamul bu tëllee xoolee ma toog ci suuf xale bi toog ci suuf ma toog ci kaw dina xam ne dëgg dëgg xale bi mooy sang waaye Malick Ndiaye boo beewee Farba Diop boo beewee ci xale yi lay dar xale yi lay dar di la aw muy neex mbaa gaa yi jël seen alal di la jox bis boo beewee yàlla nee na ma dégradé la jëlee la ci diggante asamaan ak suuf rabbi samawaati wa maa fil ardi wa maa baynahuma wa maa tax tasara asamaanan suuf maa ko yor farba damaa bëgg na ko mi ngi bëgg a guddi ci toogaay bi yàgg na bëgguma monopoliser wax bi lu may damaa bëgg a jox gars yi kilifa yi ndax damaa war a gërëm li may gërëm jox kilifa yi xanaa ñu dem seeti wallazi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yusru ala diini kulli wa kafa billahi shahida muhammadu rasulullahi wallazina maahu ashida wala kufa ruhama wa baynahum tarra an rukaan sajada yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwanan simaahum fi lwujuhi min asari sujudi zalika masalahum fi tawrit wa masalahu في الإنجيل كزرع أخرج صداه فازر فاستخلف فاستوى على سوقه جمزرق ليحز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وآتي منهم مغفرة وأجرا عظيما waaji yàllaa ko xool ne ko baal naa la tey baal na suba loo defati baal naa la ku la bëgg ma bëgg la ku la fi bàyyi ma bàyyi fi in kuntum tuhibbuna laaha fattabi'uni yuhbibkumullaahu yaxfiru lakum zunubakum wallaahu gafuurun rahiim yàlla ne ko baal naa la innaa baal naa la ko xatam bu minal li yaxfiraka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'axara yàlla ne ko yaa siin du man du man du man du samay wax yàlla ma sot ne ma sot ne ma ci soxna may ma soxna mu tudd yaasin yaasin wal quraanil hakiim tanziilul aziizil tanziilul أوحينا إليك هذا القرآن من كتب من قبل ما تقول لمن يخلص ملك يوم السبع لي ملا وأخذ لي وسمى لك ويخيني أمرا يا أيها النبي إن أهلانا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت سمكر وما ملكت يمينك مما عفى الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي اجرنا ما أقل نيب جوك تخاو تيكاو ني رسول الله موي سان مسان يا لا تبوني مجدات أجدات إيه. كل الورى ما فرم ما خمنا نيو يالو بندلكم أني موم تدات العملكم أني موم بيوم الخيام إيه، لكم مجزات أجدات كل الورى أستاذ ما ياسين كاي موسى جاي بريبارل يالا نيركم أني موم تدات بككريت لكم إيه، مجزات أجدات كل الورى يالا كو خول نكو بلا nga xamni ñoy bu yawmal xiyaamee ñëpp jaaxle ñëpp dinañ xam yaay waaja. yaakaar moo di naatun arjadat kullal wara لمي باخ باخ باخ بيوم القيامة دبي خار كن لا خار موي الرسول لك معجزات أعجزت كل الورى يلا نينا ما ماونا ني نمو كاني أدنا نيت توتو كو دفاتي نمو ماغي نيت توتو كو دفاتي نمو جودو نيت توتو كو دفاتي نمو يوخي نيت توتو كو وخي سي لو بلو اليغان دو تو موند انا كو بك سيدنا محمد لك معجزات أعجزت كل الورى munawara waa Medina di ko dalal Adama ak Alaaji Malik ne lépp dañoo la ko wax. laka mujizaatun ajaza kullal wara. si turandoo Mouhamed si turandoo borom nopp yi neexi Alaaji Malik ne dinaa la wax tëdd ci néeg bi dem bay nelaw néegu umu aani jibril fekk ko ne ko yàlla nee na subhaana alladi asra bi abdi laylan laka mu'jizaatu mu'jizat kullu wara kenn yàlla musul recevoir keneen Moustapha ba mu la mu recevoir keroog bi mu recevoir Moustapha dafa ko jël taf ko ci dënnam naan ko maa la bëggal sa bopp ana ko bëgg Seydina Muhammad laka mu'jizaatu mu'jizat kullu wara yàlla ne ko recevoir naa la te ni ma la bëggee nit dootu la ko bëggee ki la bëgg ma bëgg ko ku la fi bàyyi ma bàyyi ko te ku la topp day jub rasul mu sa njaay caay tëgg Seydina Muhammad ngir maam soo sa njaay Mami Mamadou la nata Mami Mamadou la nata Mami Mamadou la nata Mami Mamadou la nata Mami Mamadou la nata Mami Mamadou la nata Adnana Adnana Adnana Adnana Moy Mami Moy Adnana Sayla Mawda Abdahay Aywa Hamdulillah Lokhati Tuba Dudur Babu Basal Aywa Hamdulillah Lokhati Tuba الإسلام عبد مريد صادق له بخدمة أو بحب أو حديان أطاب في الأرميكا وطيبة أبو أدنانا بتوبة فوقين جم جمع مولانا والقال دخلي تجد كل دون موضوع دوال قال دخلي تجد كل دون مولانا جحاي بجربا مدرسي أيوة خمد loxoti alaaji Maalik a wala na lay lay jëndee fii si karo la woolu doon na ba Seexu Tijaan sama Maodo fii la rawee gaañi ba tey ba tey aduna naa du gën kaay ñu dem fu ngeen dem sama Maodo jawal ay dese gi ku ci dëggal dëggal loxo si ma mënoo su ma dëggal yaaram maa ngi ma mënoo su ma dëggal yaaram maa ngi lay wayantoo dégg naa dawtal nga yeesal xar defal mu nay xalaatal amoo njëriñ dafa daw dafa naanu caayam réer ko ami jural danu doom doo doo danu mel ni moom ba mukk sama awad di lawale وسيد الآخرين محمد أمينة دي سياي عبد الله موي سباي عبد المطلب موي سما يبي يا رنان بمارك دم تلاو بو مسيك وام وخرم يوم انسل خجيلة نام قفانا فمجال سمدنا نام قران مرحبا محمد رجابك الله نام قران مرحبا محمد Mamadou Diougol guddi na. jaani yow la ni xaar nabi. Taahirun. Mamadou. Taahirun la. mu Taahirun. ama soppe yonent bi. Taahirun la. mu Taahirun. يا يمود طاهر يا متهر صحنا يا سيدنا طاهر لا متهر آه وهذا ما هذا حال لا يماس منه لنا تواضعي قلبي وعارة تبارك الله يا رسول الله طب قبل ما يجيبوا di nga ñëw léegi incha allah nga dem ak nga dem ak Malick may ma tuuti rek ma am ok dafa am jiwoo bu ngeen war a def xaj Malick maa ngi lay ziar bu baax moom loo xam ne. Njaay da koy wax ndax ne bu duggee ci jotaay bi am fi mag moom xelam dal na rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo fi am rak dañuy fàllu moo daan jotaay bi wet nu geesu rek gis nañ kuñ mën a kuñ mën tudd ba pare ziyaar la nag ndax suñu waa kër Papa Khalifa Badiane mu Serigne Babacar Sy ñu ngi nii toog moom as nekk nii allah di doom ci góor gi tabarakallahu kàmpu mii di jarbaatam ñoom Chérif macha allah koo ci xool rek dem ci góor gi loolu la yàlla dogal ñu dund ak bay xale nag yu bare bare bare mu def ñuy lu bare bare bare bare ndax képp kuy ànd ak moom am nga personnalité loolu la yàlla dogal yàlla na yàlla yokki leer ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam Malick moom mënuñoo wax ci moom lu bari ndax danoo bokk waaye bokk moo gis xam na xam na xaritoo yàlla dogal sama diggante moom ñoom xam nañ dafay am loo xam ne yàllaa ko def ci njaboot alxaaj Soose Njaay man ñi ci bokk ñëpp a ma <laughs> yàlla xam na ko ñëpp am sama kees la bari na li tax du may bari lu may génn di dem ci programme yi may ñëw loolu daf cee bokk yàlla xam na ko li ma li ma waxoon sànq wala Mbaye Diagne ko wax Abdou bu toog de wala Mbaye Diagne ko wax mooy waaw ñu xaar reer yi lii Mbaye Diagne wax dafa bis yoo xam ne bisu cant la moo tax defe naa bi ma bi ma bi ma li tax ma tardé ma koy jéggalu maam as defe naa bi ñu bi ñu xëyee ci midi laa fi nekkoon ba vingt une heures laa fi doon jóge midi laa fi nekkoon ba vingt une heure te loolu ma def waroon naa def plus loolu ndax suñu ànd ndax suñu ànd def naa ni yéen mën ngeen ko seere euh, li nga xam ne nag moo fi ne ba ne fi mooy sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp mooy sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp bis bii su ma ñëwee ma def ci lii rek bàyyi ñoom xam leen jaadu na ndax su ma neexoon sax toog fee bañ ci def dara bu boobaa it nii rek lay demee waaye toogaay bu yàgg ay kilifa toog te ñëpp sonn nañu euh, buñ la ko waxee buñ na ko waxul sax sonn nañu waaye loolu ndax jëm ji di maam as badian jëmm ji nga xam ne moom moo ñu président suñu jotaayu tey nii toogaay bi mu fi toog nii Toga sunu bàyyi khalifa Bayan bu serigne Babacar si toogaayu serigne Babacar si bu Seydil Hadji malik la toogaayu Seydil Hadji malik bu yontiyaat bu cheikhou Tidiane toogaayu cheikhou Tidiane bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax nak bi biñ ko waxee jotay ji ya koy président ni ñun ñëpp yëpp nañu té di borom cër nag wàccee di borom cër wàccee boppam di la ñaanal bajaan yenn bi yal na diis te yàlla téyel la ko yal na diis te yàlla téyel la ko yenn bi bu mu oyof na diis gan na waaye bu diisee yal na la ko yàlla téyel ci barke yonent yi wax na ko léegi suñu bàyyi xalifa bajaan ko ànd ak moom am personnalité benn daayira ci Sénégal la Serigne Babacar créé moom xam nga sëñ Babacar moo créé daayira yi parce que moo initié daayira yi mais benn daayira la sëriñ Babacar sos ne ku ci bokk yaa ngi sam poche muy daayira Abraar bu Pape Khalifa Badiane benn daayira yi la sëriñ Babacar nekk responsable moral muy daayira Abraar bu sëriñ Babacar si bu Pape Khalifa Badiane moo ko sos ne ko képp ku nekk ci daayira bi yaa ngi sama poche kooku nag jëmmam ñëwee toog fii te góor gii ñepp xam ne musul wax lu tay duma ci dugg sax nak gaay di leen may ma yëngal gaay yi di ci xaabaabal duma ko laal dina ko baye gaay mom bu ñëwee tok suñu jotaay ak samedi samedi bu jot may waxtaan daayira bi abdul Aziz mbay mi diko way ñom farba gaay di leen jàppale kàbbu yàlla yalla yàlla barkeel bu ñoom bu ñu ñëwee la bu ñu tok fi suñu jotaay Eh, te it surtout yeneen mi ngi si jotaay bi Moussa wax na ko Chérif Bachir mii Chérif Younus Aydara mooy maamam Chérif Younus Aydara mooy kii maamam ca Bañeer Casamance kii maamam Chérif Younus Aydara dafa am benn waaju jënd ndawal bi mu jëndee ndawal bi ñu ñëw ba fekk si buntu jumaa ji Chérif Younus Aydara bi julli mu teg ndaw bi si buntu jumaa bi dugg ànd Chérif Yunus julli julli ba noppi sëlmal jël ndawal bi yóbbul ko soxnaam ndawal togg soxnaam togg ndawal bi ndawal bi mënta ñor togg ba sonn ndawal bi mënta ñor mu génnee ko ne ko foo jaaroon ak ndawal bi mu ko jaaruma fenn mun ne ko xalaatal mu ne ko fenn dong laa ko tegoon ndax changé wuñ ko bi may julli ñëw naa fekk Chérif Yunus Aidara bi julli ma ñëw julli ci ginnaawam teg ndawal bi ci ginnaaw maanaam ndawal bi mi ngi ci sàppe bi ci ginnaaw mu ne ko loolu laa fàttaliku mu ne ko yóbbu ko nga euh, wax ko lan nga wax ko ko wan ko Chérif mu yóbbu ko ci Chérif Yunus Aydara wan ko ko Chérif Yunus Aydara ne ko foo tegoon ndawal bi mu ko ci ginnaaw laa ko teg Chérif Yunus Aydara ne ko képp ku ma ku julli sama ginnaaw yàlla du la lakk àjjana nga ci moo waral safara si ndawal bi bu yow ba yowmal xiyaam moo koy togg du lakk moom maamam kon bu ñuy toog si jotaay bi ànd bokk ci délégation bi barakallahu Euh, buñ ko toppee fii lañuy fii la ñuy xaabaabal ndax sama suñu diggante farba mënuñu si wax li ma waxoon diggante man ak farba Omar Faye euh, euh, Mbaye Diagne mënuñu si wax ndax man sama taaw Mbaye Diagne moom la tudd moom laa ko tuddee kon defe naa ni suñu diggante yi yàlla def na si def na si càmm ba farba bi muy tudd doomam bu mujj bii Cheikh Tidiane dafa ñëw toog ne ma. moo ko wax de alxar la ni may dégg ne ma damaa dama ko niseroon avant ma lay xam ne Cheikh Mbaye dinaa ko tuddee doom mais su ma ko niseruloon yow laa koy tuddee. mu ne dama niseroon ni dinaa tuddee Cheikh Mbaye doom looloo waral moom laa koy tuddee mais Ndiaye du loolu loolu yow laa koy bi mu woowee Cheikh Mbaye wax ko Cheikh Mbaye daf ma woo ne ma tur bi yaa ko moom ma ne ko bu ñu ma waroon tuddee ñu tuddee ko grand na yàlla yàlla barkeel ñu baal ma ci kàddu yi xol bi moo fees moo tax moo tax Moustapha mënatuñu mënatuñu waaye nag. Eh, ñu tàccul ma première dame yi tàccul leen ma première dame yi tàccul leen ma première dame yi yaay leen ma première dame yi waaw jàmbaar leen maam eh, as première dame ñaanal ko première dame yi kabu première ñaanal leen xëy suba doo yor dara doo yor dara ah, ah, ah, ah Serigne Babacar Seye Moussa suba doo yor dara. da ngay xool mu lay xool nga tëdd toog fi nga toog mbaa nga yor sa kurus xam nga sëriñ mu ndaw yi ñuy def toog yor sa kurus heure añ jot nga toog rek laay di xaar añ mu ñëw taajal la loo xam ne ñëw joxe woo ko nga xam ne ni tabaar fakal yàlla con sec daal la la ma waxoon ci daayiraam rek con sec daal maag moom ñu nduroo wax lépp li wax jaagal lenn donc lépp ñoo ko duróo mooy coowaal firaangi rek moom la xuloo maag moom bu ñu xuloo rek ngi jéggalu bu baax a Eh, Moustapha Aziz Tall tey la doon def conférence am Ahmad Diakhaté di ko waxtaan mu ne ma dafa bëgg man ma ñëw ci ba tey tey tey tey bi may dugg si tànk bi mi ngi may woo pour ma ñëw mais Mbaye Diagne moo ne ma fokk nga ñëw ci Farba parce que moom lañ dëkkal Mbaye Diagne vingt et moom ñoo ànd kon loolu moo waral ñu toog fii beneen bi ñu toppit mooy ku bokk ci coordination Duut Kenn Mbay ñu jiite ko mi ngi conférence fii ci HLM bëggoon Duut Kenn Mbay ñëw Duut Kenn Mbay mënul ñëw man mii ma waroon ko faa teewal ma bàyyi ko ngir conférence bi te su ma jógee nii Tiwaawan laa jëm waaye man yàlla daf maa dimbalee nen lu nit di xëccoo loola sori naa ko li may teral du ci du ma xëccoo ay way ku ma ko gën a bëgg ma bàyyi koog yow te lu ne ci sama poos ma jox la ko ndax xam naa lan mooy cofeelu yonent bi kuy ànd ak jur kenn bay di toog ci ginnaawam ay way du la jaaxal kon yàlla na yàlla defal jàmm ci barki yonent bi Abdou Mbaye wayel yàlla na yàlla defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala إلى الحق من إلى الحق من دار المحال المفرق بيدلك الأقال كئما ويجمع كتاح في ميزير لأوسار الأنام مبلغ ki leen sóob ci tariqu ila daari salaam bi xam ngeen ni ku am ay mbokk kenn mënu laa jëw déedéet déedéet yàlla nee na rafetaleen seeni diggante ak seeni mbokk ndax Muhammad abdalaa yay baay Abdoulaye say bataay baayam say bata may baayam mbokk dugg na waaye li Oustaz doon wax léegi yàlla na ko neex lay def yàlla nee na maa bind aadama aadama amul yaay te aadama amul baay aadama yi waa koy tifli yàlla ne sama kàttan la woon yàlla yàlla ne man na la wan aadama far déglu mbaa ma arrêté yàlla ne man na la wan aadama rocc kon hawa am na ويحوى أموياي حوى وأخوي تفي يلا مي سبكة لمن يلا يلا نيم بن عيسى نيكون تومان noo def ba am doom mu ne man taluma leen sama kurus laa yor damaa jàpp sama njàmbur wax leen ak liir bi liir baa jóg ni إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت محمدا خير البرية أتى دينك قد دعله كل فتى خدمه جميع الأنبياء والرسل ذاك رداك الأتقياء نرك درج ما درج من تباك له يدخل الرب رب العرش ما يرضى كذا من الأنوار ما يخشى ربي رسولك يا الله الله الله يا الله قول لا إله إلا الله الله الله يا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا الله يا ليوني suñu maam sëñ Babacar doy na kéemaan allah allah allah allah la ilaha illallah allah bur yàlla yàlla yónnee yónnee Seexu Tijaan suñu maam sëñ Babacar doy na kéemaan allah allah allah yàlla la ilaha illa allah allah bur yàlla yàlla yónnee yónneen Seexul Tijaan suñu maam Sëñ Babacar doy na kéema allah allah allah allah allah yàlla la ilaha illa allah allah

ma sey ko te jam ki ja ko so sa da ma سيفوتي جار خطورة ما سيفوتي جار خصوصا ما سيفوتي جار خطورة ما سيفوتي جار خصوصا الله وبكر سكر ما بيأسر ما أمول مرام وجاء سمر الله وبكر سكر ما بيأسر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 Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah Berkiman siang kali berarti Allah Buku definisi baik hidup luar biasa. الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وزايدا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما mbokk jullit gannaaw ba ñu sante yàlla julli si sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ndokkale bu baax si bés bu rëy di ñaan si yàlla yàlla na suñ borom bi nangul ñu ko di jaahi nabiyil karim fa tabaarakallaahu di nuyu bu baax euh, sëñ Farba mi nga xam ne mooy boromi mbir mi moo fi dajale mbooloo mi si biir gërëm gi ñuy gërëm ba di ko si di ko nuyu ñu ngi siy sargal bu baax soxna Faama bu Farba di ko si ndokkale di ko it ñaanal yàlla di ñaan si yàlla yàlla na suñ borom bi defal ko si diggante bi njabootu saali yi na alhamdulilah eh, di gërëm bu baax suñu turaloo Seydi Hadj Malick ñu ngi koy gërëm di ko sant di leen seedeel ne ku oyof la di la seedal ni ku baax la yal na yàlla fayal ñu ko lépp loo xam ne bëgg na ko ci diina ji ak tarixa bi moo ko xam yal na suñ borom bi àggale ko ci dërëje yonent bi muhammadu rasulullah salaatu wasalaam alhamdulillah Euh, di ñaan si yàlla képp koo xam ne rondu nga tànt bii yàlla na suñ borom yi faj sa ajo bàkkaar boo fi indi yàlla na suñ borom bi ruggi ko di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee déwén damay faral di wax ne jotaay yu mel nii nañ koy di fonk ndaxte jëlee nañu suñu baay xalifa bajaan bu sëriñ Babacar si mu ne bu ñu dajee si wàll yàlla nekk si yàlla ak yonanti bi ñun kese nañ fi nekk ñun ñu ngi fiy nekk ay malaykam nenañu buñu défé buñu defee yalla jundi ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba jotaay bi mag ñepp tasaaroo nee malaika yoy yooyu ñun fi nekkal duñ fi jox fi lañuy nekk di sabbal seen borom di sikkat

ki nga xamne mom mo moo waral jotaay bii ak ay mbokam ñooñu la ñuy seddale yiw bi lool motax dal nga donu ko alhamdulilah sank ci bir jotaay bi dégg na ñu wax ne sëñ malik Ndiaye neena na jotaay yii dañ ci bloquer sa dund ma bëgg indi nak ne loolu loolu mu wax déggee nañ ko suñu baay baay xalifa bajaan bu sëriñ Babacar Si pour dëggal loolu nee na jotaay yi buñ ci nekkee mbokk suñu dund dafa mel ni rek ngay déglu sa téléphone benn jóg ba mu neex la nga bu lakkee audio bi dam doxi say soxla ba sa soxla mat nga ñëw continuer fa nga yemoon rek lay continuer nee na jotaay yii buñ si nekkee liñ fi toog yëpp bokk suñ dund liñ siy dégg nag mooy que ne jotaay yii nañ koy bëri duñ koy bu ñuy bëri di toog si jotaay yi mel nii liñ siy dégg mooy dañuy gudd fan dal nañ ko yàlla boole defal yàlla tënkuñu si diina ji tënkuñu si tarixa Cheikh na Ahmed Tijaan Cherif إلى يوم القيامة ندخت تاريخ بي سما غاي نيو مكو نيو مغنا خام مقام مانا بي يالنا يالا راي نيو تي يالنا يالا ديكال نيو تي دي جاه النبي الكريم الحمد لله دي كونتان باخ سي جتاي بي دي سارغال soxla yi nga xam ne teew nañ fi ndaxte ñoom daanaka ñoom ñoo yore affaire bi yal na yàlla fay leen yàlla barkeel seen seen lépp loo xam ne yeneen koy def si jaamu yàlla yal na suñ borom bi def ci barke te it barkeel seen njaboot ñi si amul borom kër yàlla may leen ko si daraja yonent bi muhammadu rasulullah salaatu wasalaam alhamdulillah ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gëreum bu baax di beral gëreum farba moom mi nga xam yëkëti na jotaay wi boole ñu ci ñu and ak seen wa dahiratul abrar bu khalifa abou bakkar si bu bay khalifa badian bu serigne babakar si wa tabarakallah ñoo tok ni ñu leen di gëreum it di leen sant ndaxte dahira bi mom euh, sëñ bi ah samedi bu jot moom moo ñuy animel dahir bi boole ceeg ñoom far ba ñuy fa tabarakallahu yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen di leen ndokkale kilifa yi toog ñu leen di ndokkale di leen ndokkale bu baax di ñaan si yàlla yal na yàlla may ñu jaamu yàlla guñ nangu ndaxte loolu rek moo am solo jaamu yàlla guñ nangu loolu rek ay am solo yal na suñ borom bi boole ñu ko defal بجاه النبي الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين bu baax Babacar Tivaouane 7TV maa ngi ñëw ci moom Babacar borom Tivaouane 7TV ñu ngi koy gërëm di suñu rakk oustaz Babacar Seye yow it ñu ngi lay di sama frère di borom xam-xam di sama xarit ñu ngi lay nuyu sànq daf ma woo téléphone ne ma damaa bëgg koy dem tànt ba ñu àndandoo waaye bi ma demee ma ma ma fi ma tëdd rek ma nelaw ba badu moo ma moo ma yee gis nga njóobee nii gis nga kàbb kàbb jóob gis nga njóobee coow li ci biti du woon dara gis nga ñaari jëmm yii ñoo yoroon coow li ndax dañ doon reer yi ñu Maodo ne Njaay la sant boo ko lekkul boo xooloon loxo bi lekkul waaye kii ci ginnaaw moom loxo bi takk na loxo bi takk na de takk na loxo bi takkul ah baax na ñoo yoroon coow li si biti de Bachir baarakallaahu oustaz Babacar ñu ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal euh, Serigne Cheikh Tidiane Mbaye Omar baal ma de Serigne Cheikh Tidiane Mbaye di sunu soppe ni ko Farba waxee Mbaye Diagne waxee moom yaayam sunu yaay mère Leena da wax ni oustaz Malick Ndiaye Pape Malick Mbaye ak Farba aw ma woon chance su nag moom danaan jékki-jékki rek jënd yi ndawal invité leen defar leen supp man aw ma chance su tombé ko saa yi ko ki defee Farba moo koy day fekk ma jàpp. da wax ne oustaz Malick Ndiaye dama ko bëgg dafa civilisé loolu doon wax Cheikh. waa mère Léna moom la ñuy rendre hommage ci bis bi sëriñ bi moom it euh, Ahmed Fall ñoom samay nitu bopp lañu moo tax. moo tax Omar ngërëm bi man ma mën koo def sama Ahmed Fall mi montre bii ma takk moo ma ko moo ma ko moo ma ko jox te du bii rek barakallahu yooyu ya, ya, sëriñ bi dañuy bëgg bu bu gars yi daanelee kàddu bi dañ lay poñe bu gars yi daanelee kàddu bi waaw mën na ko de dañ lay poñe xaas gi lañ bëgg de kàbbu keroog wax na li sa baay di wax Sénégal néew na nga gis ku koy wax Omar baal ma de. <laughs> Ah, li li kàbb wax sa bàyyi wax ko te waxu ko. Uh-huh. ci dégg naa dafa toog góor gi def mu gis. waaw Amad Lamine Maodo kii wuy juróom mooy xalifa bajaan bu Serigne Babacar Sy. maa moom la wóolu doyloo ko dénk ko yëf yi. kap do mu dimbali nga ñew taxaw ni bayam ngay am soxla yaanal ki way juram ngay am soxla khalifa bay khalifa mu serigne babakar si nga ñew ci mom wax ko sa soxla mu ne fay ma tan kàbbu toog mu ne la soxla tan nga am mu ne wañ fay ma tan joxal kabu mu jox kàbbu mu ne kàbbu denc ko demal mu aajo bi fajul nga ñew jël sa xaalis ku koy defati ah bariwul de maa ngi ak Adou boobu garaawul. maa ngi ak ah, boobu garaawul boobu garaawul. boobu garaawul am na ñu ko yàlla may. waaye xam nga bu garaaw. Hmm. gars yi nekk ci xurum bi. waaw di tagg yonent bi ak Cheikhu Tidiane ba yaramam tàng xol bi sedd mu ne kàbbu bindal ma turu ñi fi nekk ñëpp kenn du dee ba déwén. bindal ma turu ñi fi nekk. Kàbbu Jóob mi ngi nii toog jug bind tur yëpp jox ko góor gi dugg ci biir ne ko kenn du dee ba déwén jotaay bii ñëpp dinañ ko fekkee waa déwén te defe naa ba ko defee at moomu kenn deewul ñëpp fekkee nañ ko ba déwén ku ñemee poñe yàlla ci loolu Bachir Bachir ñëwal yéen yéen yéen la góor gi yar ne sama turandoo maam doomam turu turu sama turandoo di doomam Alaaji Maalik dafa dafa am benn erreur médicale ne dafa am benn erreur médicale bu ñu def ci moom. mu nekk daal le coma 27 jours sama turandoo Maodo. nee na boobu Kaolack la. ne mu waroon jugee fii taal otoom fekki ko Kaolack. mu ñëw ci góor gi bàyyi xalifa ba yaan bi sëñ Babacar. mu ne ko ah sa sët bi dee. ma nga ma nga hôpital de ba léegi yeewoogul de. mu ne ko jëlal lii yóbbu xaw ma ban feebar koy rey waaye du bii boo demee dana yeewu te ba nga àggee yeewu na way juróom moo ko def laata muy génn àdduna at yu bare avant muy génn àdduna la bind ne lépp lu ko yàlla xamaloon ci ñaan bu nangu jox na ko jëmm jiitoo hmm? bind bàyyi wax ay kanamu seede nit ñi toog mu wax ko yemu ci xam ne ni ëllëg dina wax gaa yi jaxase waxi mu bind ci ay loxoom bàyyi testament bi ñëpp ñi ngeeg moom maa ngeeg sama téléphone mii mu ne ko yow laa doyloo jox naa la kër gi néeg baa ngi nii mboolem li ma fi doon ñaan yàlla yàllay nangu boo duggee ci biir ñaan yàlla yàlla nangu kon su ma nee dañ lay poñe ñi fi toog seen aajo yi faju xam naa ni borom yi aajo rek a fi toog moo tax ma ne dama lay poñe c'est pas pour far Farba ne ko yaay président jotaay bi xam na lim def de li mu xam ci siyeen kenn xamul nu mu toll waaye bu jëlee kii mu ko jotaay bi. garanti gaa tax. siyeen la. bugguma may yoon. soolal cheikh su mu jox Malick. Malick dem fay noo. xalifa yi Aboubacar borom الدين مهنا وكما بين العيون ولا يرجع أي خليفة مهموم يرنين سالة سجد ومالك مالك دم بينه عينه الباب ترجعي برا من دين مغنى من دين إذن المؤلى على على المؤلى الله خربي خربي ده ممكن تسوي فتم وعبد بيادي كم كم وعبد قرادي كم كم وعبد بيادي يا ابن عثمان كم زلت وعزت كم بشرت كم ولكم كم كم وكم ثم كم حسنت حيرانا شيخ ولا ضيقت إنه يحكي إلى القارزم علي ضامن مقامي عبد علماء بل فاج العلام وكمطر الحمران سامر اسماعيل كريم مطلع شيخ المشاكل ابو صار اسمعنا كريم الضلال شيخ المشايخ والمعرفاني كله على وقعر توصيل من كل مكان يا ترى كنا لو ما قريبة كنت شرقا مع العلماء يعني فينا وصلت المصطفى وانتم تعرفين شك ورب يبيعك جبال طريقة بمولانا بقد تشرب في قدم أحلائي قصص تحصل حالي مالك ونفق بك المعلمان

مولى بدك ساو سعسين الحاج مالك تبين جدو ترقين الآية المصالبة تعلق من الأمر مولى بدك ساو سميته رقيته مع عطايا سجال bàyyi Maodo Fajak Sarr. ak di jërëjëf Babacar Seye Babacar Seye Alhaji Malick. wa yutahhirukum tatheera Abdou Mane di nuyu bu baax suñu sëriñ bi toog Alhaji Malick Badiane di kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamam ndax laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi te al ulama wa rasul anbiya yi ñu ngi koy nuyu di ko ziar tabarakallahu di nuyu bu baax xaj Malick Njaay ndax moom yàlla moo ñu boole laata ma koo xam njëkk xam way juróom wu góor muy bàyyi alxaaji Samba Njaay yàlla yàlla di ko wér mu daan ànd ak Baye Ndiaga boobu ñu nekk ay xale yu tuuti di toog ci suufu taabalu Baye Ndiaga Baye Alhaji Samba di waxtaane xilaasu zërëb ku ne xam na ne quatre-vingt-dix-huit ak léegi def na vingt cinq ans kon xam nga loolu yàgg na moo tax Malick buy wax bu yuuxoo rek ma ne ah waa waaye mënul ak mënul am énergie bi woy jërëm bu góor amoon ci firi yàlla na ko yàlla may lu ko ëpp loolu sax mu waxtaane thème bu am solo aaye bu am solo la waxtaane te loolu rek moo ñu arrangé si jamono jii nii ndax loolu lañu yàlla digal bu ñu bàyyee li ñu yàlla digal rek dañuy sonn suñu bopp ndax wa man axrada an zikri yi fa inna lahu ishatan dankan waaye nag wa naxsuruhu yawmal xiyaamati ahma ku bàyyi li yàlla tere muy alquran bii rek sa dund day naqari ba pare yawmal xiyaam booy dee da ngay gumba te ku gumba du xam fan lay jaar kon yàlla yàlla sàmm ko aar ko waxtaan bi am na solo yàlla nañ yàlla defal dégg topp ñun li li dal li dal nabiyen yi daluñu ndax ku ne xam na ne seytaane ba mu yore marchandise am taseken ci yàlla ngay saa dem di ko livrer daf ko ne bokk na ci marchandise yi iñaan li xaj Malick doon waxtaane mu ne ko kan nga koy jox mu ne ko jox naa ko boroom xam-xam yi moom yàgg nañoo bokk jotaay yoo xamante ne daf koy moom mu yëkkati kàddu jox ma manit bu ma kazaalika ndax tabaarakallaahu jamono ji doy na doy waar boo xamante ne nit ñi da ngay préféré sax toog sa kër waaye moom dafa am loo xam ne daf ko doon ci yoon bi ñu nit ñuy doxee loolu xam nga mooy ah kenn ku nekk mu jàng ko si làmmiñam ndaxte jëlee nañ suñu baay baay xalifa bajaan bu sëriñ Babacar Si mu ne ñu ku nekk si ñun na jàng si làmmiñam fatihatul kitab salaatul fatihi kursiyu lixlaas falaxi ak naasi ñu tëjee ko salaatul fatihi ñu xaddiyal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak i ñoñom pasal siyede mam abul abbas cheikhna ahmed tijan sharif radiallahu anhu ak kulu mam di fasal si yéene maam cheikh mouhamadou xaali maam yàlla na suñ borom bi fajal la ko ak aajo bi lu mu rëy rëy rëy rëy yàlla na ko suñ borom bi faj te daraja yonente bi mouhamadou rasulullah salatu wasalaam يا براحة الخبرين من كل داء والبلاء يا ذا الجليل يا عظيم الكون خير كون لي بقيت بحولك أحسياء السلام الحول من رب رحيم بحق فيقول أهل وبن أهل وبن أقيد أقيد تام توام كون تقوان من حائم خير نحصر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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم محمد تجاهل توبات Tiwaawan نسيت جمال Canaba كما كل عين فم جرت ترلل كذاك صاحي مع الباقين أجمعين yow foofu gis kenn ci ñoom fonkal te bul do Tivaouane 7 TV l'information religieuse d'ici et d'ailleurs